ini bihamdillahi ashariyu xaqidatan walfiqhu malikiyu tariqatu lxadimi si nahji lqawim tariqati hada siratu mustaqim wa innani xadimu xadimu rasul wa tilka dimmatun biha arju lwasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu di dellusiwaat di leen siyaare te di leen baal te di leen ko baal te di ñaan suñ boroom nangul ñu jépp jaamu goo xam ne ñoo ngi koy def ci weeru koor bii te defal ñu tawféex ak ndimbal ba ñu mën koo matale te lim ci diggee suñu borom defal ñu ko ci barkeb Cheikhul Xadim radiallahu anhu wa ardaahu te eggal fi Cheikh Mahamadul Muntaxa mii te dooli ko wér dooli ko man dooli ko kattan ba yéene mu def ci lu kawe njortam ginnaaw loolu niñ ko baaxoo woon a ànd ak yéen ci seen télévision bii di Touba Monde bi TV ci ay jataay yoo xam ne mooy koor ak lim lamboo te ñu nekkoon ci diggante Cheikhul Xadim ak alquranul karim te jiitu woon ca tuuti diggante alaaxa bi mu amoon ak cheikhul relation bi mu amoon xadim te ñu indi woon ca tuuti tey nag ñu fas yéene ànd ak yéen kon ci tafsirul quranul karim tafsirul quran mooy firi alquran ci boppam ak cheikhul xadim ak jëmmi firi al alquranul karim bu ko defee li tax ñu ko ci jubli yi nag mooy ne ay mbir yu bari bokk na ci wax ju siiw ci nañ Sëriñ Tuubaa dana ay firi alquran beneen bi mooy li xew ci jamono mooy nit ci ci jàkka yeeg ci yeneen yu baree bari ci jataay firi alquran loolu lu ñu gis la di ko gis ci télévision yi ñu koy ñuy ñuy firi alquranul karim mu mel ne war naa ab taxaw seetlu war na ci kon tafsirul alquranu karim kon buñ ko waxee alquran lu màgg la lu rëy di waxi ku màgg ku rëy kon firi wax jooju tafsir ko doonul lu yomb doonul mbir mu yomb doomul loo xam ne ñëpp ca lef la woo xam ne wala yoon woo xam ne ñëpp ko war a sóobu ñëpp ko war a sóobu kon lu jaafee la ndax lu toll ne wax yàlla nga taxaw ca di ca wax kooku lu jafe la bu ko boroom xam-xam yi tafsir mëne su koo def ci lu dul ne ci yonent bi alayhi ci wax yonent bi alayhi salaatu salaam ci yonent bi liñ koy jëlee mooy ne mbooleem ayat yi ndax alxuraan moo ne ko dama laa wàcce alxuraan ci yow li tu li tu bayyina mooy dama ko wàcc ci yow ngir nga leeral ko nit ñi kon alquran ci moom lañ ko wàcce am na ci ayat yoo xam ne ci waxam rek lañ koy man a leerloo te loolu mooy xadisam yi mu def loolu la Sëriñ Tuubaa di junj ci waxam yi ñuy wax euh, kalaamuhu la abtaxi bihi badal li annahu tafsiru xawlillahi jal ci am na fum wax loolu am na fu wax it li annahu tariqu xawlillahi jal mooy ne waxam jooju duma ko wax xadis yonente bi du ma ko sàkkul beccal ngir ne mooy taf tafsiru alquran yàlla ji mooy bari na ci ayaati alquran yoo xam ne waxi yonente bi alayhi salaatu wasalaam xadisam wala jëfam mooy ñëw di ko leeral beneen ba ci topp mooy yi nga xam ne ñoo àndandoo ak yonente bi mu yar leen ci jàng alquran ñu doon leer leerlu maxna yi mu doon wàcc ci seen kanam ñoom it seeni wax bu ko defee ñooy gënoon a siiw nag ci wàll googu ci saxaaba yi mooy abdullahi ibn abbas bokkoon na ci abdullahi ibn masud abdullahi ibn abbas bokkoon nañ ci ñi gën a ubay ibn kaab bokkoon nañ ci ñi gënoon a siiw ci côté boobu te abdullahi ibn abbas moo fi mujj xam ngeen ne ginnaaw bi mu fi jugalee it ay dongaam euh, dongay abdullahi ibn masud dongay euh, ubay ibn kaab ñoo ñëpp bokkoon ci ñi nga xam ne euh, ñoo tafsir alquran daanaka man nga ne ci jiil bu njëkk ba ñi gënoon a siiw maanaam ci tafsir alquran karim ci lañ bokkoon léegi nag boroom xam-xam yi wutal nañ ko ay sart xam ne day tax nit ki mën a tafsir alquran du ku jug rek war a tafsir alquran karim ñu koy gisee léegi waaye nit ki xam gu mu war a xam bu wér a wér a wér a wér a wér jëmmi alquran jëmi tafsir ci boppam waaye xam euh, euh, luxatul arabiya mooy langage arabe grand-mère ba yem yaaji bayaan mm, badia euh, aru naahu xeeti xam-xam yooyu yëpp nga pekk ko bu wér a wér a wér euh, bokk na ci sart yi ngay euh, tax nga war a tafsir alquran mu mel ne sart yi war a tax nga tafsir alquran bi ñu ko tënkee yëpp gis ñu koy def ci suñ jamono ñi ci ëpp dangay gis ne genn wàllu xam-xam yooyu sax dajeewul ci ñoom kon ñoom li ñuy tafsir mooy ne ci seenum xel rek la ñuy tënk li tafsir te loolu borom xam-xam yépp ci maase woon daan ko aaye yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko njëkk a aaye mooy li wax ne képp koo xam ne wax na alquran ci gisinam képp wala mu ju waxee alquran ci lu dul benn xam-xam kooku na séentu barabam ca safara na ko daal di séentu famille fa ko yàlla yitee na ko séentu mooy taxoon sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu wa ardaahu daan wax ne ban asamaan moo may moo may tiim di ma keral ak jan suuf moo may yanu bu fekkee wax naa ci téereb yàlla bi lu ma xamul lu ma xamul loolu tax nga gis ne eh, imaamu Nawawi wax na ne eh, tafsir alquran ci boppam eh, ci koo xam ne xamul mbooleem xeeti xam-xam yi nga xam ne mooy waral nit ki mën a tafsir alquran loolu dafa xaraam bu wér a wér a wér dafa xaraam nit ki sëñuta wax ci alquran ci lu dul xam gu wér a wér bu dee nag koo xam ne boroom xam-xam la loolu moom lu ñu sopp la lu rafet la ndax wax yàlla ji daa dañ koo war a xam nit ñi dañ ko war a xam te di ko waxal ngir leeral leen nit max yi ca nekk kooku lu jaadu la lu war la waaye nag am bu dee bu dee bu dee koo xam ne li ñu gis ci jamono xam ne ci xalaati boppam rek lay tëkkandiku ak ci ci ci maslay nit ñi di tegtaloo wax ay waxam ba noppi jëlu aaya alquran tegtaloo ko te aaya bi li muy wax ak li muy wax yàlla géer yi te dañuy wax sax ci ne ñi ñiy tafsir fii ne ba doon tafsir sañoo aaye boo xam ne danga nga cay wax maanaam boo ko bëggee tafsir ñu gis ne li nga bëgg jublu ci aaya bi daa am beneen aaya ci alxuraan boo xam ne ñaari aaya yi dañu wuute boo tafsiree bii maanaam da ngay weddi bee loolu doo ko sañ te loolu dañ koy gis léeg-léeg tafsir loo xam ne beneen aaya yi ñëw weddi la loolu des ko sañ aaya boo xam ne it yu bi alayhi salaatu salaam dacaa wax ca maanaam ba mu leer kooku sañoo fee indi jeneen wax ju ko ñetteel la ca yonente bi alayhi salaatu salaam wax rek nga war a jël aaya boo xam ne saxaaba yi dañ caa wax ci maxnaam bu leer kooku it kasaalika ne ko noonu bu fekkee saxaaba yi dañoo wuute nag kii wax calee kii wax calee sañ ngaa tànn ci ñoom jenn wax waaye sañoo indi waxee ñetteel moom ci wax rek da nga tànn kenn waaye sañoo ko ci indi loolu nag mel na ne ñu gis ñu koy def li ci ëpp léeg-léeg gis ne sàmmoonte wuñ sax ak yooyu maanaam du eh, dañuy wax seen i wax bàggal daaneele ko aayab alxuraan jël ko tegtaloo ko mooy li nit ñiy def rek nga xam ne alxuraan lañ jël def ko muy li nga xam ne seen commerce bi ñu def alxuraan lañ koy rafetale mooy kenn ku ne ci ngay dëggale say wax ci ngay jaayee sa marchandise ci ngay ci ngay ci ngay publicité it say ci ngay dëggale sam ngir it ci ngay parparloo ci ngay kii ngir jàpp ne yow yaa ca nekk yaa ca taxaw te fekk na alquran du loolu du marchandise moo xam ne ku jug rek sañ koo jël di di di di ca wax lu la neex looloo tax Cheikhul Xadim bu ñëwee da daan aaya tafsir alquran des na ko nangu ci kaw ñi mu ko daan aaya mooy ne daf ko daan bañ ci ni xewoon ci réewum Sénégal ba tey fi mu nii ba léegi moo xam mooy nit ñi bu njëkk xam ngeen suñ bi ñëwee dafay fekkoon réer gu méttee métti nit ñi nan def ci alxuraan di ca foo rek lool yi daf koo bañoon bu wér a wér sax daf koo bañoon ndax ma caa nangu ndax jàppiwut noonu noonu alxuraan looloo tax ci saasi rek daa njëkk a soññ murid yi ci jàng xam-xam yittewoo leen xam-xam yittewoo xam-xam it mu xamal leen ne xam-xam yemuñu ndax xam day màgg ci li mu xamle kon xam bi gën ci xam-xam yi mooy xam-xamu tawxiid bu jàllee nag xam-xamu tafsirul alquran da ci daal di topp ndax mooy li gën a màggaat ci suuf ndax xam-xamu tawxiid moo lay xamal yàlla te yàlla moom mooy li gën a mooy moom moom amul amul lu ñaan lii gën a màgg yàlla gën a màgg lu mën a doon bu jàllee nag alquran mii nga xam ne day day day day day day day bokk ci melo tey ay waxam lu leeral day bokk ca xam-xam bi gën a mag moo ji suñ wax wa afdalul ulumi mutlaqan la daa man alimu tawaidu man lam yarida wa baxdahu tafsiru wal xadiisu wa baxdaha xamal lahu taxdiisu alfiqhu summa baxdahu l alaatu rumil jamia yaatika silaatu ma ne tawxid moo njëkk boo noppee teg ca xam-xamu tafsirul quran kon aayewul ku ko jàng kon moo ngi digle ku ko jàng ginnaaw wax na ne ginnaaw xam-xamu tawxid moo gën ci xam-xam yi aayewul ku ko jàng bu noppee nag xam xadis ak ca topp ngir ne mooy wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam te moo gën ci mbindeef yi bu noppee fiq ak yi nga xam ne li ñu tudd aalaat te mooy luxatul arabiya euh, bayaan ba ak aruud ba naawu ba euh, badia ba yi nga xam ne mooy tax nag nga mën a xam alquran mën a xam waxi yonente bi alayhi salaatu yooyu doog coy topp mu ne li yëpp boo boolee sàkku yëpp nag ci la la egg yiwani mbir doog a dikkeel kon sëñ bi moom bi mu tàmbalee rek dafa yittew yoo yittewoo njàngum alxuraan ginnaaw bi mu ko yittewoo jàng ko mokkal ko xam ko xam ngeen ne boroom nafaxatul miskiya wax na ne juróom-ñaari njàngin yépp la sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa mokkaloon alxuraan loolu bokk na ci sëñ bi mooy xeeti xiraat yi am juróom-ñaari xiraat yi ñuy wax benn bu ne suñ tubaab da cee mokkaloon dal xuraan benn bu ne doo ko cee mokkaloon xaraña ko liir ko yëmu ci waaye daal dajale téere yi tafsir yi nga xam ne moom lañ xam yépp daanaka liir leen xaraña ko lool xam seeni maxnaa xam ko bu wér a wéra a wér loolu dañ dikk ci ñaare bu ñëwee ci yenn aayat yi nga xam ne moom moo ko tafsir eh, da nga ciy fekk ak façon tafsir woo xam ne Euh, moom lii dana leer ci biir ne yàlla moo ko xamal alxuraanu karim yëmul ca loolu waaye da ko da da dajale seen yi xam ko xam ngeen suñ Basiir wax na ne alxuraanu xadis ñoo doonoon màngasib Sëñ Tuubaa bi nga xam ne ci la doon denc asraar ci ay secret ci la doon ballaloo ay xam-xamam nag ci xam gum ko xam ci ci xeeti fànnin yu wuutee wuute kon sëñ bi ginnaaw bi mu jàngee mokkal ci juróom-ñaari jàngin yooyu yëpp jàng mbooleem téere alquran xam ngeen ne tafsirul jalaalayni bokkoon na ci téere bu mu yittewoon te bokk na ci téere yu njëkk a tàmbalee liir te yittewoo gi ginnaaw bi ba bu ñu ñëwee njaarim gis ngeen loolu ci suñu Mamadou Lamine Diop Dagana ci wut gu mu ko doon wutloowaat ginnaaw bi euh, gànnaar te benn naar joxoon ko ko loolu day wane rek yittewoo gu sëñ Tuubaa yittewoon tafsir alquran ba yittewoo googaa gis sëñ ma dem ci boppam tafsir na alquran ci luxatul euh, wolof te xam ngeen ne sëñ ma dem bu fekkoon sëñ bi da ko doon aaye du ko def waaye xëy yaroo gum yaroo ci kepparu sëñ bi ak xam-xamam bari boobu nga xam ne sëñ bee ko sampam di ko doon ko jàngale yittewoo gim yittewoo moo tax sëñ ma dem euh, tafsir na alquran ci ci ci ci ci wolof ci téere boo xam ne taf tafsir na ko ci wolof euh, sëñ bi nag yemul ci liir téere yooyu xam seen i maxanaa ni boroom xam-xam yi def yemul ci liir benn waaye da liir yëpp dajale ko liir ko da daan ñaan yàlla ci boppam ndax xam na ne ñii seenu xam ci alxuraan yàlla li nga ko xamal bañ tafsir ci lii liñ tënk waaye am na ci loo xam ne nag yàllaa ko xam te kum ko xamal nga xam ko mu wëlbatiku nag di jàkkaaroog boromam di nga wax ne ko léegi nag may ma ci xam ubbi ma ci xam-xamu ci boppam boo seet ngay gis ñu naan wahab liya taawila wa tafsira wali yassir anhuma taysira mooy nag ma may taawil ak tafsir duñ dugg ci ñaari baat yi leeral benn bu ne dellu ci téeréb imam buuti yi bi ma doon wax léegi da nga ca fekk euh, tàqale gum ca def ci ñoom ñaar yooyu ci lan mooy taawil ak lan mooy tafsir nga ne dañuy wax euh, taawil boo gis tafsir la waaye du caa gis ne tafsir boo gis yit taawil la sëñ bi nag ñaan boromam nag ma may ñoom ñaar ñëpp te nga yombalal ma leen te nga yombalal ma leen ñoom ñaar wax ne wahab liya tawxiida wal xadiisa wahab liya tafsira wa taxdiisa habliya ya wahabu tafsira alkitab bi gayri makrin aw isabin aw idab noonu la ko daan ñaane lu baree bari la sax bay diñ ci indi mënoon nañ ci indi lu baree baree bari bari waaye nag eh, gàttañ lu ci loolu ci ne da daan ñaan boroomam mu may ko mu defal ko ubbi ko ci tafsirul alquranul karim ginnaaw bi it yàlla nangul na ko ñaan googu ba am leeral ko tax wax ne it yàlla ci boppam moo ko xamal tafsir moo ko tafsiral alquran moo ko tawilal it alquranul karim yàlla mi nga xam ne moo waxoon ne eh, kenn xamu ko wa maa ya'lamu taawilahu wa rasixuuna fil ilmi yàlla rek xam taawila alquran yàlla moom yi nag moo ko xamal moo ko taawilal alquran moo ko tafsiral allamani taawila wa tafsira taalima man xanni tawal masira yàlla mi nga xam ne moo ma taxañal sama dox bi moo ma xamal taawil alquran ak tafsir wax na it ci gum ko yittewoo moom tafsirul quran eh, ci lay jegewu jëm ci yàlla ci lay jegew ay jéegoom yi muy dox ci yàlla ci lay gën a jege axatu fikrallahi sa tafsiri wa innahu yi lahu mashiri nawaytu tafsiran yuallimul xuyub bi aalimil xuyubi mushibil uyub kon eh, ci tafsiru alquran ci lay jegewoo dama yéene tafsir téere bi nga xam ne eh, yàlla mi nga xam ne mooy xamal téere bi yàlla bi nga xam ne mooy mooy xamale mbóot ak ci kan waaye ci xamaluk yàlla mi nga xam ne moo demal samay euh, yàlla mi xam xëy bu ba noppi demal samay ayib waxaan ne ufassirul qur'ana wal xadiisa bi man bihi xaqaqa li taxdiisa yooyu da koy fekk ci mbir lu bari wala atlu kitaaba bi tafsirin wa abuduhu bihi dawaaman bila sakkin wala dajari mooy ne damay jàng damay jàng damay euh, alquranul karim ànd ko tafsir waaye di ci jaamu yàlla sax ci dàkk ci ludul ak déng-déng wala genn sikk sakka kon dal mën nañoo wax ne euh, amma li wax ne sëñ Tuubaa da doon aaye tafsirul alquran kooku moom amuñ ci ñu nusu bu wér waaye mën nañoo wax ne bu dee ci tafsir nii ko jamono defee nga xam ne kenn ku ne da ngay jug rek di wax ci alquran loola neex di di di di di di di di di dëgëral sa mësëb wala saw gisin sa tariqa wala say say say say waxtaan di ko dëgëralee ay ay alquran te li ngay wax xamoo ca xamoo xamoo xam ab xadis rot na ca wala saaba yi wax nañ ca wala wala aaya am na aaya bu muy defal munaqasha ci alquran loolu lépp sàmmante woog ci ba noppi sàmmante woog dara dara dara it ci xam-xam yi nga xam ne moom la nit ki war a xam ba noppi ci ngir mu mën a tafsir alquran kooku moom suñ bi da koo bañoon te da ko daan aaya bu wér a sax da ko bañoonte da ko daan waaye nag ki nga xam ne xam na yooyu yëpp boole sart ya dajee ci moom mu amee ragal yàlla boole ci euh, mucc ci bànneex kooku moom dañuy sopp lool sax ci muy génne maanaay alquran di ko tafsir waaye nag amaa lii xewoon moom kooku moom sëñ bi kenn ku ne xam ne ne mësu cee ànd te du ci masa d'accord loolu nag lenn ci nit ñi dañu ciy sukkandiku di wax ne suñ bi daan ay tafsir alquran léeg-léeg buñ bëggee ngay wax rek dafa am terme yoo xam ne ñaare buñ bëggee dàq xam-xam ci yoon wi wala tappalekat yi buñ ko bëggee jëfandikoo dañu moom la ñuy jëfandikoo yu baree bari la xam-xam sëñ bi dee su ko xam ci téere rek euh, sëñ bi nekkul ak taalibe dee su ko amee ci téere rek xeet yu bare bari la euh, alxuraan ji gars yi wax alxuraan moom fi dañ ko fekkoon lii lee di ci nett di ci léeg sax ak ñenn ñàgg ci di ci wax ci mam Cheikh yoo xam ne maam Cheikh la yenn ya wérut yenn yi seen tappale yi nekk wala lañ bëgg a dugal ci boppi nit ñi moom lañ koy bëgg a rek maanaam jël ko muy seenu kii waaye euh, loolu moom sëñ bi aaye gi daan aaye mooy aaye waaye li mu bëggoon mooy nit ñi taalibe yi yittewoo xam-xam yi war a tax ñu mën a tafsir alquran ba bu ñuy jàng alquran xam maxnaaya bu wér a wér loolu moom moo doon bëgguk sëñ bi bu wér wér ñu ñëw ci lenn ci aay yi nga xam ne sëriñ bi tafsir na ko xam ngeen yàlla ko xamal kon tafsiram dana wuuteeg lool lool lool tafsiru nit ñi te koolu ku ko xool ci mbooleem majmuwa bi boo xoolee ak téere bi jawaamiul kalim fii ma warada anil abdul xadim bunt bi ci njëkk yaakaar naa xama ya ca topp ci lu mel noonu ulumul quran la ko la ko jagleel dèjà dèjà indi na ci yu baree baree bari waaye dangay seetlu ne eh, lii ñu xam ci tafsir téere yi ci alxuraan yi ngay gis na sëñ bi moom beneen déggin la amee ci alxuraan boo xam ne dangay xam ne ki ko ko wàcce woon moo ko ko jàngal ki ko wàcce woon moo ko ko jàngal ak eh, li yéeme it mooy xam gi mi xam toftalay aaya yi am nii téere bi nekke am léegi da ngay gis aaya fii gis aaya fii mu man laa wax aaya bi jël aaya bi boole koog bi boole koog bi wax ju tënku joo xam ne loolu defoon na ko ci ay yu bari lu mel ne mbirum firawna ki ko doon laaj ni ko ah, gisuma firawna yàlla waxe moo nga sawara ak lu mel ne yow ma yafirul maru min axi min axihi euh, boobu yooyu am na yu mel noonu yu mu ci defoon waaye yenn ay yi nga xam ne da koo tafsir bokk na ca aay euh, bi wax ne innal muluka isa daxalu firiwul rek xam nga daa innal buur maanaam boroom doole wala kattan te moo lu moo doon ca Suleymaan euh, ba Suleymaan ba mu yónnee hudhuda Euh, um, ca ca buurub bu jigéen ba nga xam ne mooy jiite woon mbooloo moomu te ñu doon jaamu jaamu jant bi euh, wajatuha mook nitam ña yas juduna li samsi bu ma juumul ba Suleymaan yónnee hud hud mu yóbbul leen leeral ba ba ma àggee daawoo mbooloo ma ne leen léegi nag euh, lu may lu may lu may lu may def mbooloo mi ubbi ko ndax man mosuma décidé men wiir te dul ne yéen ngeen ko fekke mbooloo mi xamal ko ne ñun borom kàttan dañu mel noonu pour daal bu ñëwee it ñu mën a jàpp ci kanam léegi nag xoolal looy def mu ne leen nag moom buur moom su duggee ci euh, heure su duggee ci réew rek da leen dana fa def yàqu gu rëy ba noppi wa jaxloo aishata ahliha ashilla mooy ne ña fa gën a tedd da leen mujj def ñu doon nit ñu torox kon sëñ bi ne innal muluka firiwul loolu innal ko mooy ngi jublu caay-caay yi mooy jikko yu bon yu bu fekkee isa daxalu xariyatan mu ne eh, loolu ñu ngi ci jublu ab xol mooy ne bu fekkee ne dugg na ci ab xol mooy caay-caay yi bu fekkee ne dugg na ci ab xol afsaduha dañ koy yàq mooy ne innal muluka bu buur yi buñ duggee ci ab dëkk dañuy yàq dëkk ba def ña ci gënoon tedd ñu bon dañu ne eh, caay-caay yi bu duggee ci xolu doomu aadama liñ cay déggee mooy ne day yàq xol ba bokk na ci yeneen wa imsaska llaahu bi durrin fala kaasifa lahu illa mu ne mooy ne bu la yàlla eh, tegee am nattu wala lor amul kenn kenn ku ko mën a dindi ko dul moom sëñ bi ne firee ko ci ne mooy ne bu la ragal mindeef yóbbu ci nga mooy yàlla mukk ndax heure soo mooyee yàlla ba mbugalam ñëw amul kenn ku mën a dox sa digganteek moom heure soo ko mooyee amul ba mbugalam ñëw amul ku mën a dox sa diggante moom wa yurit ka bi yàlla bëggee ci yow yiw amul kenn ku mën a dox sa diggante ak yiw woowu ragal nit mbindeef yóbbee nga bàyyi ak jaamu yàlla ndax bu fekkee ngënee loolu yàlla ñëw na amul kenn ku mën a dox sa diggante moom ba tere la ko gis nga aaya yi ni mu ko firee wa in taxaddu nixmatillahi laa tax taxsuha mooy ne boo leen limee boo leen bëggoon a lim xéwali yàlla yi mu def ci yéen loolee nga man suñ ne ne kullu nafsin min anfasika ne bépp noyyi boo xam ne noyyi ko ci xéewal yàlla bokk bépp yëngatu boo yëngatu wala bépp dal boo dànku moo ngi bokk ci xéewali yàlla yi daal ne wayin bu fekkee du da ngeen ko doon lim dal go yëngatu wala loo yëngal mu yëngatu wala loo dalal mu dal moo ngi bokk ci xéewali yàlla yi bépp jéego boo jéego yëkkati sa tànk bi teg ko moo ngi bokk ci xéwal yàlla yi di heure su waxee dafa wax wa in ta'uddu ne jalla jalaaluhu nag mooy laysa kamislihi shay yàlla moom dara melu na moom wala yakun lahu kufan amul luñ koy ndendal kon euh, wa in ta'uddu nihmatallahi laa tuhsuha am na aaya bu mu firee fa man ittaqa wa aslaha fala xawfun alayhim wala hum yaxsanun mu ne fa ma ku ragal yàlla te jëf-jëf ju yiw kooku amul lu muy ragal fii ci at amul maanaam euh, du ragal te duñ ko jàqal moom xel mu dal dayaana kóolute dal dayaama sëñ bi ne fa ma ni toxaa mooy ne weddi yàlla ako caay-caay ak lu xaraam ak luñ sib ak ak ak ak bokkaale ak i neen wa aslaha mu ne wa aslaha ñu jublu gëm yàlla ci gëm ci tawxid ak lislaam ak ihsaan rafetal ak def waajib mooy li war ak liñ sopp ak li nga xam ne lu baax la tey yiwanal lu dagan la tey yiwanal mu ne ñooñu falaa xawfun alayhim mooy ne duñ ragal dara ci àdduna ñi def loolu ñi nga xam ne ñoo bàyyi lee sax ragal dara ci àdduna wala hum mooy ne duñ jàq mukk it ëllëg yowmal xiyaam ca àllaaxira duñ ci jàq mënoon na see indi lu bari bari ndax mañ maa bi suñu da dajale woon ku ko seetlu da nga ci fekk yu baree baree bari même euh, téere boobu maax te su aj bu kawee defar ko muy téere siñ si la boobu jawaay maol kalim fi maa war a daanil abdul xadim da nga ca fekk it lu baree bari ci xeeti tafsir yooyu yi waaye suñ jubaa daal moom yàlla ko xamal tafsiru alquran moom loo ko ko ay wutoon it ku ko tafsir ci koo xam ne daa jàng géeju ba xam ko doon ña war a bokk ci ña ko war a tafsir mooy ñi nga xam ne dañoo xam mboolem xam-xam yi nga xam ne day waral nit ki war a tafsir alquran waaye lim doon aaye mooy lii xew nga xam ne kenn ku ne day jug jël alquran def ko muy li ngay dëgërale say wax li ngay dëgëre sa gëm-gëm li ngay dëgale say euh, sa mësëb bi nga nekk li ngay laye sa sa sa mbir mi nga nekk waaye li ngay jaayee sa marchandise loolu moom suñu da ko doon aaye da koo bañoon bu wér a wér a wér da ko bañoon bu wér a wér bëgg na it jàngkat yi ñu xóot lool ci fexe. yittewoo mel ne ne ndax bayit yooyu waxoon léegi jiital gu mu koy jiital ginnaaw xel mu taw tawxiid wane na na bëggoon na kon lool jàngkat yi yittewoo tafsir alquran njàngum xam-xami tafsir alquran yi tax ñu koy ñu koy koy def bari na ci mag ñoo xam ne xam ngeen ñoom ñëpp yàlla dogaloon na boroomi xam-xam la ñu suñ ko ko yàlla defaloon mooy ñu ko waroon ñëpp gën koo jege ay boroomi xam-xam lañu woon te ci sëkk ci seede ñi suñ ma dem tafsir na alquranul karim ci làngoo na xam nga mu xamoon ne sëñ bi yittiwoo na ko tax mu jàppandalal ko taalibe yi ba def ko ci wolof ngir ñu mën koo jariñoo bu ko defee nag comme li ñuy wax tafsir ba tey du jël téereb ibnu kasir wala jël téereb sëñ Madu Dem boobu di ko liir di ko jàng di wax lañ ca wax kooku moom jàngat téere boobu la téereb tafsir yi ngay jàng waaye bokkut ak nag tafsir alquran ci bopp nga xam ne yow yaay ballulu yaay jël dajale kii ak yooyu kooku ba tey ba loolu ba tey taxul mu bokk waaye ñu moytu di wax ci alquran loo xam ne eh, ci sam xel rek nga ko teg wala ci saw gisiin wala say yaakaar rek nga ko teg alquran ku ciy wax am na nu loo war xam-xam yoo war a amee war naa am foo àgg ba war caa mën a wax waaye juuk rek wax ci alquran ëpp naa def te loolu mel na ni feeñ na lool ci télévision yu Sénégal yi surtout ci weeru yi ñu nekk nga xam ne bu jub see moom mel ne nit ñi alquran mooy seen commerce bi gën a dox conférence diine yi seen commerce waaye alxuraan daja féete nga xam ne ku jug tudd ko ku jug di la lay ca dégg ku wax ba àggal eh, tarif aaya boo xamee la aaya ba firi wala lañ wax ci aaya ba ak lim doon wax dangay mel ne yàlla géel yi ngir ne bokkuñu dara dara dara dara dara waaye comme alxuraan day kum jug moom ngay dëgëree say wax moom ngay def sa mësëb ña des nga jàpp ne nekkuñu ca ba ci lii xew rek ci jamono gis ngeen ko am na ñoo xam ne Euh, mooy suñ mbokk yi wax euh, bi ñoom ci nusuuf si alxuraan yi rek la ñuy sukkandikoo euh, texte rek la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy rek te du taf duñ ko tafsir duñ ko kii ba noppi it ñoom dañoo bëgg a demal seen bopp ci alxuraan loolu it mën na nekk ndax alxuraan leetar la bu yàlla bind jaam ñi waaye du ñëpp ñoo am sañ yëkkatiku dem ci faw ñu am ci ñuñ sukkandiku ñoo xam ne xam nañ ko bu wér wér ñu doog ci ñooñ it loolu yóbbee na leen njuumte yu baree bari gis nañ ne. yóbbee na leen njuumte yu baree bari ci ci yu baree bari ci takfiir seen moroomi jullit yeeg ñu baree bari kenn ku ne it jullit ñi parparloo gi metti na kenn ku ne naan man ahlul alquran la ci alquran ak sunna laa nekk ñi ci des nekkuñu ci loolu it ëpp na loolu it te loolu yooyu rek ñu ko yóbbee xëy du mel noonu rek ñu ko yóbbee kon ñoo ngi jéggluwaat ñëpp te di leen baal àq te di leen ko baal yoo wax ne tënk nañ lool waaye jégglu ci lëndëm gi xëy na ki doon wax moom li ma koy waxee toujours rek mooy ne yéene jéeg bëgg jee fi nekk waaye xam-xam bi nekku fi li mu wax yi xamu ko xam gu leer ci xelam ba man koo génne ba ñu koy wax jariñoo waaye jublu gi rek mooy ne jariñante kenn ku ne la nga xam nga baaxu ko sa moroom ngir rek ñun ñëpp ñu maase ci jariñu ñaan suñu borom defal ñu taw feex ak ndimbal ba lii ñuy fas yéene def ci weer wi lépp mu nangul ñu ko te may ñu kàttan guñ ko àggaleeg jàmm ci barkib Cheikhul Khadim te yàggal fi Cheikh Mamadul Muntaxa kon ñu ngi leen di baaluwaat àq te di leen balaq di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu يا خير ضيف الغداء بالبيت